bu ñu demee ci ginnaaw ñu waxal leen loo xam ne su ngeen ko xasee xam li des ci kanam lu nit ñi waxati it da ngeen xam ndeyi loola fan la cosaanoo Chine ash-sha'biya dëkk la bu yàgg dëkk boo xam ne seen ati bopp lañ am am seen weeri bopp am seen seeti bopp daa mel ni daal àddina gu beru la ci biir àddina ca bu yàggoon chinois yi nag dafa yàgg waaye ay africain lañu te it ay nit ñu ñuul lañu doonoon te ba léegi seeni visage seeni kanam ak seen ADN wone na ne ñoom ay nit yu ñuul lañu doonoon mosoon naa ko fee wax ca ba rajo municipal de Dakar di door a ubbi Cheikh Tidiane ña ngi invité ma ma wax ne chinois yi ay nit ñu ñuul lañu woon am ñu ne waaw am ñu ma weddi waaye defe naa ne tubaab bi mujj nañ di dem nañ daal ba nangu ne chinois yi ay nit ñu ñuul lañu woon euh, xam naa ne boo dikkee fii ci Afrique ñi fi gën a bokkal ci jëmm mooy timining yi ak kurboy yi maanaam ñi ñuy wax ay ñi ñuy wax fii ay pygmée ñooñu lañ gën a nirool ne ñooy seeni bokk waaye yàgg nañ fee jóge yàgg jóge goo xam ne kenn mënut la ko misaal ndax ay xeet lañu woon yoo xam ne ca seen cosaan daawuñu dëkk ci suuf dañ daan dëkk ci ay garab yu njool yu kowe ca kaw di kaw garab yi lañ daan dëkk ràbb fa si nii néeg te loolu ba léegi <laughs> mi ngi ci biir Afrique ndeysaan bu njëkk li nit ñi xamul mooy àddina garab yi jalgandoo woon na jalgandoo goo xam ne gore mën naa nekk ci garab yi dem lu mat quinze kilomètres vingt kilomètres te du wàcc day ñokkali ci kii jaar ci gee ñokkali ci gee jaar ci gee lépp rabbaloo tëris ak a neexoon mu del siwaat noonu tey ndax loolu mooy li gën tey moytu safara euh, léegi nag chinois yooyu foofu ñu dëkk seen histoire yàgg na yàgg goo xam ne booy xool sax da nga naan ñoom ak ñam ak ñam ak ñam ak faraayina yi ci ak yàggaay waaye diine bouddhiste lañ mujj am waaye nag amuñu woon diine lu jiitu ñuy am diine bouddhiste Chine nag mënuma ma ko tàmbalee fu sori faa sori waaye damay ñëw ba ci téeméeri at yi nga xam ne moom lañu ñu souffrir te tubaab yi doon leen këlli këllee Chine Angleterre dafa dem ba fa Angleterre demee yóbbu fa njaayam drogue drogue bii gars yi di tere léegi maanaam Angleterre ci li ko gën a may alal drogue boobu ci la bokk drogue biir lañ fa daan yóbbu di ko jaay chinois yi waaye booba jama it jamono it xool nañu leen ñu nekk nit ñu dëgër nit ñu wér nit ñoo xam ne médecine traditionnelle lañuy ñuy fajoo amul lenn lu bokk ci produit chimique lu nekk ci ñoom di nit ñu mën a yow ñu man arts martiaux ñoo xam ne boo leen dabeeg seen loxo yi neen itam man ngaa gànnaay waaye dinañ mucc ñooña lañ fa fekkoon ci jooju jamono. léegi nag ñu dem fa dugg ci seen biir di fa yóbbu drogue di ko fa jaay waaye bul xam dorog bi luñ koy jaayee de ay or lañ koy jaayee ak i xaalis ak i jamaa matière bi gën a foor ci àddina muy or ak yooyu ñoom lañ doon jaayee seen drogue yooyu di lañ or chinois yi di leen di ko yóbbu Angleterre ñu nekk ca noona nekk ca noona ba mujj buurub Chine daal di joxe benn décret nen nañu dajale mboolem luy drogue ci réew mi ñu dajale lépp taal ko mu ne bu fa kenn jaayati drogue ñii li ñuy indil bu baaxoon ci seen réew lay yem te lii day yàq aw aw nit bu ko fi kenn jaayati loolu nag ca la Angleterre jóg gi ba wax ne ba wax ne Chine dañuy empêcher commerce mondial te commerce mondial kenn sañu ko empêcher fenn fu nekk dañ fa war a dem di dugg di génn di jënd di jaay loolu lañu xeexe woon ak ñoom <coughs> ba xeexe ak ñoom nag ñoo leen ëppoon ay gànnaay doon te chinois yi gën na bari ay nit waaye ñu gañe leen ba ñu leen gañe colonisé leen delloo si waat sa njaayam dorog ma fa nekkoon loolu chinois yi souffrir nañ ci lu mat téeméeri at ñu di leen nappaaje ñoom tubaab yi ba ñu am seen benn doom bu ñuy tuddee Mawat Sitting Tong am nañ ko wax nag Mao Mao Sedtum waaye mawat sitin tong la waaj a tudd mawat sitin mooy borom feccetab lex boobu te bopp bi dafa xaw rëy te dafa leel mawat sitin ba ñëwee la fa daal di indi fiwoya mooy communisme woote fa am ñu ko jàppale waaye jamono jooju fekk na chinois yi dem nañ ba am seen gouvernement comme ni Sénégal mel tey gouvernement boo xam ne tubaab yi anglais ñoo ko def nga xam ne ñooñu ñoom ci waawu Angleterre la ñuy wéy comme li Sénégal di wéy ci waawu France léegi nag ñooñu la fa maawo fekk ba ñooñu fekk sax am nañu indépendant mais indépendant dans la communauté indépendant dans la làkk français bàyyi sa wala fi maam ak say tukulóor comme ni ñu koy Sénégal moo fa amoon boobu temps langue officielle anglais comme Sénégal rek langue officielle français yaa ngi dégg. Mao nag daal di jóg daal di woote chinois ñu dellu ci seen làkki maam ya yañ doon bind ekkati fa révolution maoïste bi ba ñu fa ekkatee révolution maoïste bi nag xeex gañee ba ñu xeexee gañe nag léegi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon nguurug Angleterre comme ni gaa yi nekkee fi nguurug France ba leen gañee nag dañoo daw génn Chine populaire dem ci benn dun bu ñuy wax Taïwan Taïwan nag ci Chine la mas bokk ba àddina di àddina ba léegi Taïwan ci Chine la mas bokk waaye dande na ko daanaka lu bëgg a mat ñaar téeméeri waaye ci moom la mas bokk gaa ya daw nag ci Chine bu yaatu bi daal di dem Taïwan rabi ji fa anglais yi daal di seen diggante ak Mao ñu daal di former foofa seen ak Taïwan tuddee Chine Taïwan Chine Taïwan léegi nag daal di sañc fa ab capital tudde ko Taipei man nañ mën nañ nag defe naa ñaar fukki million nangam yaakaar naa bari nañu léegi ba ñu fa sañcee seenu Chine Taïwan taxul woon ñu ne ñoom bokkuñ ci Chine ñoom dañ ne ba léegi ay chinois lañ ci siin lañ bokk waaye Chine Taïwan la ñuy def di topp tubaab yi ci lépp comme ni ko ñoom gouvernement senegal yi defee di déglu tubaab yi ci lépp ñaareel ba itam dañuy def go démocratie di def ay parti di def ay campagne di wate di wërwërloo di sàccante ak ak trafiqué ay ay ay watekat jël fii yóbbu fee comme ni ko ñu koy defee fii rek ñoom noonu lañ koy defee foofu noonu euh, nga xam ne ku falute am yi bokk say bokk dañuy jaay seen bakkan ci ne nuñ mën a def doo wàcc <laughs> dañuy séddale suñu suñu breton ruq ba dañuy yóbbu fa nit ñi sa bokk ñu wate pour foofu ñoom fa dara comme ni ko comme ni ko sama sama yi jamono yi léegi yi defee loolu moo am Chine Taïwan léegi nag Chine populaire moom loolu amu fa Chine populaire moom ak communiste moo fa nekk benn parti tël amul leneen <laughs> waaw moo ko am waaye léegi nag dañoo daggoon ñaari partie dañoo dañoo daggoon Hong Kong dagg Chine Taïwan Hong Kong nag ay ay ay siykati film yu siiw la ñu woon le bradeur de Hong Kong euh, xam ngeen ne foofu la foofu lañ ko siyee waaw le bradeur de Hong Kong Wang Yo contre trois salopards maanaam bari na ay film yoo xam ne da ko doon gis ngeen nekkee ay xale mais Hong Kong lañ ko doon lañ ko doon siyee Hong Kong googa booba jamono nekkul woon toppul woon Chine Taïwan nag itamit toppul woon Chine léegi nag ñu àddina di dox àddina di dox chinois yi di ñafe àddina di dox chinois yi di ñafe di dox ñu ubbi rek seen économique daal di jublu ci wàllu njàng ak jàngal seeni doom technologie yu bees yi bawul ba ba noppi nag wàññiwaat nag seeni seeni seeni impôt ubbil mbooleem ñi nga xam ne ay entreprise yi nekk ci Europe ak Asie ak Asie ak Amérique ñu ñëw sañ ci fa seen i usine di fa liggéey seen i matériel ñu leen di fayeku impôt bu yomb euh, ndax fa ñu dëkk impôt bañ leen di teg mënuñu caa am lañ bëgg ñu ñëw Chine noonu la Chine def ci politique ba taxaw bay si fi mu egsi tey léegi nag bi nga xamee ne egsi na fi mu egsi tey Amérique moo nekkoon ci bopp bi ñee surtout topp ci waaw ñi ci des nag di xëccoo léegi nag ñuy xëccoo ci wàllu économique ak technologie économique ak technologie économique ak technologie ba Chine léegi daanaka aussi gannaaw Union soviétique la topp ah, bu dee ci wàllu économique sax dañuy wax rek waaye da yàlla xam doy na xam nga mbir mu mag moom bu xasee siiw ba lañ ko ne doonatoo champion da nga ko yenu ba ca ko dul suuf waaye fekk daanoo ko bo bu mënoo mënulaa ak ëpp la doole gi yëpp daal ko rek Chine moom dañu ne Amérique daaneel si ba noppi ñu doole gëm ne Chine borom doole la waaye am na doole léegi nag ba loolu amee chinois yi ne ñoom duñ bàyyi mukk Chine Taipei Chine Taïwan Chine Taipei ak dañ koy wax dañuy wax Chine Taipei di wax Chine tay Taïwan waaye yëpp itam Chine la rek ndax ñoom ba léegi ay chinois lañu ah, ñu nekk ci noonu. tubaab yi daal di ngembu daal di jàppale Taïwan ci ne ko fekk bëggoo ñibbi Chine doo ñibbi waaye nag boo demee ca Nations Unies moom Nations Unies d'accord ne Taïwan am réew la ñoom dañoo xam ne Taïwan ci siin la bokk bal fii ñu toll tey américains yi li ñu wax mooy Taïwan ci Chine la bokk Nations Unies li ñu wax mooy Taïwan ci Chine la bokk ñaari politique daf cee am dañoo bëgg a dugal démocratie biir siin te Taïwan rek moo di seen bunt te bu ñu nee Taïwan bokkatul ci Chine bunt boobu day dagg te léegi Hong Kong lañ ko doon jiim bëgg a jàllale Hong Kong démocratie bi duggal ko Chine far nag Hong Kong daa di ñibbi Chine Hong Kong faf nag ñibbi Chine Hong Kong moom daa mujj ñibbi Chine bokk ca communiste ya léegi bokk ca Chine achabiya mooy Chine populaire léegi nag benn bëñ day fonk te weex lan la lan la tubaab yi amati ci jeune boobu ci côté Chine moo di Taïwan Taïwan nanguwuñu mu doon am réew ci Chine lañ ko boole waaye Taïwan nanguwuñu gouvernement chinois jiite ko waaye dañ ko defal ab autonomie boo xam ne dañ fay doxal démocratie kon bunt lañ ko bëgg a def pour jaare démocratie ci Taïwan ñu dugal ko Chine populaire loolu moo di secret bi àddina yépp daanaka kenn ku ci d'accord ne Taïwan am réew la amut te Nations Unies moo ko lànk te Amérique leen imposé ci ne déedéet bàyyi leen Taïwan mu continuer ci Chine mu nekk ab autonomie interne bu seen bopp ndax foofu lañ mën di dugg ko génn fi la ñuy jaar ba duggale démocratie biir Chine chinois yi ne foofu du nekk ci nag toj fil loolu moo tax may nañ ay américain di dem Taïwan may nañ ay anglais di fa dem may nañu ay français di fa dem waaye kilifa politique gu mag gu bokk ci gouvernement américain chinois yi nanguñu mu ñu dem fa li tax nanguñ ko dañoo wax ne si ngeen fa dee ay haut responsable dañ faa war a fekk ay haut responsable te réew moo existé wul nanguwu leen ne am réew la war te mën a am ay o responsable yu tax ngeen di fa dem leen fekki euh, tourisme de guerre mën nañ faa dem waaye daal ab président de la république bu américain même du dem foofu ndax ginnaaw d'accordul leen ne ne Chine Taïwan am réew la ci ñun la bokk kon warul leen a jël ay haut responsable ñu di fa seeni moroom lañ ci war a fekki te loola amul foofa Chine la am mais amul Taïwan loolu mooy seen jote bi nga xam ne ci la ñu nekk di di kàcce kàcce Chine nee na moom Taïwan du ko bàyyi mu ko leen di saar ci moom Taïwan nee na moom du génn ci Chine te Chine du ko élif waaw loolu daal nee waaw boo leen nee ay chinois ngeen ñu ne waaw nit ku dëkk Taïwan boo ko nee ndax yow ab sapone nga di nga dugg ci lijjanti boo xamul kañ lay jeex nanguwuñu ko waa lañ nangoo doon ba léegi ay chinois lañu waaye ay chinois lañ yoo xam ne chinois démocratique lañu duñ chinois communisme te bëgguñoo génn Chine te bëgguñoo bàyyi démocratie te ñoo bëgg a doon bunt tubaab bi nga xam ne fi la tubaab bi di jaaree Chine te Chine xam na ne bu ko bàyyee bunt boobu danañ ko fi jaaree loolu moo tax Naji Beloshi la xaw ma Naji Beloshi ba mu jógee Amérique te bokk ca au responsable gouvernement américain mais day dem Taïwan Chine chinois yi ne du ngeen fa dem ndax reconnaître leen ko kon am réew kon du ngeen fa dem loolu ci gàttal gu gàtt sax goo xam ne bàyyi bu doon bëri gu ma ne libre laa ci wax. loolu ci gàttal mooy li nga xam ne moo dox diggante Taïwan Chine Taïwan Taipei ak Chine populaire Pékin léegi nag loolu mooy seen problème guerre mondiale nag mën na cee jaaree waaye nag gëmuma ko ndax Amérique doole ji Chine am pour mu moom di xeex ñu ne ku ko tax ngay xeex mu ne Taïwan a tax may xeex te boo ko dee Amérique fu Taïwan bokk mu ne la Taïwan ci Chine la bokk loolu ak naafeq mënu ko wees ndax kat may na maar ñu ngi fa doon feesu jullit di leen jibi te américains yi li mu ñu xeexal leen te ñooñu ca may na maar googu lañ dëkk yaa ngi dégg ay góor yoone yi nga xam ne ñoom du ñuy chinois ay góor yoone yi du ñuy chinois ay turc lañu langue turc la ñuy làkk waaye zone boobu lañ dëkke woon te dañ faa amoon seen réewam bopp am seen frontière doon ay jullit chinois yi maasale ko américains yi waxuñu si dara loolu daal doy na waar Taïwan daal ñi nga xam ne ay ay ay yëfar lañu ñoom la américain di jàppale te ñoom ci Chine lañu bokk te ba léegi nangu nañu ne ci Chine lañu bokk te Amérique nangu na ne Taïwan ci Chine la bokk waaye mi ngi koy faral ay góor nag bokkuñu ci Chine bokkuñu askan dañoo diggaloo ay suuf waaye meneen réewum jullit la woon ay ti ay ay ay ay ay Turkmanistan ñoo fa dëkk bokkuñu askan bokkuñu diine bokkuñu woon suuf Chine lekk na ko Amérique bokku ci dara loolu nag ngeen atteel ko seen bopp ndax mënuma koo attee waaye daal nii la demee ci gàttal gu gàtt nag laa la la la laa leen ko defal loolu nag ci lañ toll fi mu nekk nii Chine Taipei Chine Chine Pékin eh, Chine Pékin nag moo jur Chine Taipei gouvernement bi nekk tey ci Chine Taipei mooy gouvernement ba anglais yi formé woon ci Chine Pékin te Mao si dàqali fa ñu dawee foofu nag raw si ci dun boo xam ne dunu Chine la gars tubaab yi nag karkaral leen fi bëgg leen fee nekk di leen korkoral bàyyi wu ñu leen ñu nekk am réew ndax Chine nanguwu ko te àddina yi it ànduñu ci bàyyi wu ñu leen ñu delluwaat bokk ci Chine ga ñu bokkoon lu may nekk foofu di lang-langi ñu di fa dugg di génn di bu ñuy fexeel Chine daal Taïwan googu lañ koy fexeelee waaye nag ah loolu seen bopp ak si bopp seen bopp la ñoom suñu yoon nekku ca dinañ dellu si waat ñu waxal leen ci siin lu gën a yaatu lool ba ngeen gën cee xam lu bari waaye lii dama ko doon wax rek pour ngeen xam ne Taïwan ci siin la bokk anglais yi ba ñu coloniser Chine ba samp fa seen gouvernement tappale yooyu def fa langue nationale langue langue langue officielle anglais di fa doxal seen i seen i business di fa jaay seen yi drogue ak seen yi kenn xamul ba bi ñu am indépendant ñu amal leen indépendant boo xam ne indépendant golo ga xaj bala mu yaa moom sa bopp waaye doo génn ci taatu kër gi ci kër gi ngay dëkk ah, ak euh, yu demee noonu bañ demee ba Mao yëkkati révolution bi nag génne génn génn euh, xeex fa dàq gouvernement bi nga xam ne mooy gouvernement wu mbi mu daggil yooyu nga xam ne comme bi tubaab yi def fii ci Sénégal moom la woon foofu ci Chine gaaya dañoo daw ak seeni te tubaab yaram rawale ji leen ci dun bu ñuy wax Taïwan comme Gorée rek waaye nag dànd na ko deux cent kilomètres ci Chine waaye Taïwan nag ci Chine la bokk te ba ñu koy dawi ñoom gouvernement booba ay chinois lañ fa fekkoon ñu def fa nag seen autonomie bu bokk ci Chine def fa seen gouvernement wu bo bopp bopp bopp bopp bopp bàyyi Chine mu féete ne ñu bàyyi Taïwan féete nii Chine bokkatul ilifatul Taïwan ci ci ci complètement te Taïwan génnul Chine loolu mooy seen coow wasalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, waaw li ñu li ñu war li ñu fàttee leeral te te te te jam ko ci biir wax ji mooy ay góor baat boobu ma wax euh, ne leen ay góor yi ay ay ay Turkmanistan lañu maanaam dafa am loo xam ne alamul islaam yi gépp dañ koo xamul waaye nag li dañ koo war a xam nag euh, li tax ñu war koo xam mooy tubaab yi bépp askan bu am lu muy bañ yaatu ginnaaw nekk ay jullit bi ñuy coloniser àddina ba di ko daggate dañ leen daggate def leen ay pàcc pàcc fenn fu nekk ñu yóbbu fa ab ak wàll gis nga askan wi nga xam ne ñoom ñooy osmaani yoone yi bokk ci turkmanistan yi gouvernement bi ñu taxawaloon muy état islamique nekkoon euh, li ñuy wax l'empire de ottoman ci tubaab bi ñu demee ba daaneel ko bay balkanisé àddina bi giir Turkmenistan dañ leen a tàqale am na ñoo xam ne dañoo dëkkoon ca île de Chypre ñu leen di wax chypriote turc ak chypriote romain mais île de Chypre boobu ci boppam mooy jasiratul Xubrus ca jamonoy moom la ca jamonoy abbasiya la nekkoon ci dawla islamiya chypriote turc yooyu dañ faa dugal ay chypriote grec ay yunaan ñu bokk île ba di ko xëccoo ñu leen ñaari naal chypriote turc yi waa turc di leen jàppale ci chypriote grec yi waa yunaan di leen jàppale mooy Grèce ñu def ko ba fa góom boo xam ne saa yu neexee xolli ko ñu nekk ci xëccoo cool ne coboy te ñooñu ay turkmanistan lañ ay góori yone yi dañoo yoroon seen réewam bopp ci continent Asie lañ bokk mais dañoo yoroon seen réewam bopp mu doon ab roq ni Somalie mel ci Afrique noonu la ay góor yónne yi meloon foofa noona ca Asie wàll yi féete na leen nag ay bouddhiste ñoo leen fa féete muy chinois yi waaye seen réew bopp la yére yore woon doonoon ay jullit bokk ci giiru Turkmanistan gaa yi ba ñuy joxem réew joxoon nañ leenam réew waaye chinois yi dañ leen a lekk nangu réew ma complètement di leen jaamloo lu nekk ñaaw téef wu yàlla sàkk nag ña leen koy def jàpp góor ñi ay trois millions quatre millions yóbbu ca kasa ya soldaar yi bu ñu amee feet ñu ne dem leen ca dëkkab jullit ya ca ay góor ya soldaar day ñëw jàppas ngone ci kawam lal taaleel ci suuf mu tëdd fay nelaw mu tëdd ca gannaaw yaay ja lu ko soob def te du jabaram te jëkkër jaan ca kasa ba ak yu ñaaw téef yu nekk ñu koy def pour ne leen na nañ yàq seen aqida nañ yàq seen seen jikko ji nañ ko nañ leen def comme ay malaat loolu américains yi ñu ngi ci teg te ndax am turki de buñ amoon doole ba toll ni Amérique ci doole kon fajoon nañu loolu Ouzbékistan ay Turkmanistan lañ Azerbaïdjan ay Turkmanistan lañ Sijistan ay turkmanistan lañ xarxasistan ah. ay turkmanistan lañ te réew yi ma leen di wax yëpp ay millions de millions de dizaines ñoo fa nekk ci ay nit te ay askani turkmanistan lañ te ay jullit lañ xoolal ni leen tubaab yi daggatee ay góor yi ña nga Chine dagg nañ ko Sajistan dagg nañ ko Azerbaïdjan dagg nañ ko Xarxasistan dagg nañ ko maanaam te loolu yëpp benn askanu maanaam askanu askanu waa ji la askanu Erdogan la wax tur yi sax ak ak tur yi sax ak sant yeeg askan yi ñuy tuddee sax Turkmanistan Kirghizistan Azerbaïdjan Ouzbékistan Erdogan xam nga maam boo dee xool seen seen làkk sax fi ñuy terminé seen i wax sax eh, yow da nga koy déggal sa bopp te la ko wax da ngay xam ne ñii ay askan la ñuy bok mais ñooñu li ñuy nekk nekk wenn askan bokk ci askanu Turkmanistan taxul tey ñu booloo nekk benn te dañoo booloo woon bu njëkk te dawlal Usmaniya benn dëkk la woon waaye dañoo xool ne ñii en tant que daggatiwuñ leen ñi def ay parti ki pàcc pàcc ñoom danañ yëkkati raayaw islam te kon kenn mënu ci ñoom dara waaye noonu lañ leen daggatee dégg nga yi dañ leen a daggate daggate Kurdistan yi dañ leen a daggate yaa ngi dégg euh, fële ni ñu ko waxee Xuraasaan dañ aan aan daal ñoo gën a dëgër bopp ci diine islam ñu gën dëgër bopp ci diine islam moo di ñi nga xam ne aan aan aan la seen affaire di jeexe Pakistan Iran Afghanistan Bangladesh Turkmenistan Ouzbékistan Sijistan Kirgizistan Hind aan aan yooyu ñoo gën a dëgër bopp ci askani addina yi te ñoom ñëpp ay jullit lañu waaye dañ leen dagatee dagatee dagatee dagatee dagatee dagatee leen ay morso morso la tax ñu def ko mooy askan yii sant aan moom fekk ñi ngi leen di bàyyi ñii àndandoo nekk mel na mbooloo nekk mel na réew islam duñ mën ci moom daal te ba léegi nit ñi xamaguñu ne politique boobu moom la moom la tubaab yi occident bi loolu lay dox Erdogan nag loolu lay xeex bëgg ko dellu si waat Erdogan fi mu ne xeexam mooy cypriote turquie yi nañ am seen on autonome seenam réew ay góor ya nañu jëf seen bopp yor seenam réew ak Pakistan nañ ko bàyyi ci jàmm Kyrgyzstan nañ leen bàyyi ci jàmm Azerbaïdjan nañ leen bàyyi ci jàmm Sidistan ñu bàyyi leen ci jàmm ndax ñooñu ñoo di waa anin gi nga xam ne ay Kyrgyzstan lañu maanaam ay Turkmanistan lañu ay Turkmanistan lañu ñooñu ñooy anin yi doon ay Turkmanistan yeneen anin yi nag ñoom dañoo nekk ay Perse ak ay ak ak ay ak ay ay urdu mooy Iran dégg nga mooy Pakistan dégg nga Bangladesh seen ko daggee Afghanistan yaa ngi dégg yooyu ci la bokk même boo demee ba Siicaan maanaam ñun ñëpp ci xeetu aan lañ bokk Siicaan moom la jox li léegi mais Siicaan ci askanu aaneen woowu lañ bokk te ñooñu di terminer aan ci seen ci seen tur yëpp ay jullit lañu te ñooy ñii gën a dëgër bopp nag ci àddina bi. ñoo ñi gën a dëgër bopp ci àddina bi ñoo ñi gën a bari noteer ci àddina bi ñoo ñi gën a nangoo muñ ay ay ñaataange ci àddina bi ñoo ñi gën a nangoo xeex ci àddina bi ñoo gën a jàmbaare ci àddina bi te ñoom ñëpp ñoo ci ñi gën a gëm ci àddina bi lañ bokk waaye ñi gën a dagg te tàggale leen ci àddina bi giirug aaneen googu ci lañ bokk Kurdistan Turkistan ak euh, fa ca des fa féete gi ginnaaw Iran am na ci moom tamit ñooñu euh, ñëpp ngay gis mooy giiru aaneen gi daal ci gàttal ñoo ñi gën